المالك الحق المبين شيخ ابراهيم كوريريا كوغيندي المريد هو سيرفيس دمام شيخ ابراهيم فال ok mbokk yi jërë ngeen jëf ba tay ñi ngi fi ni ci kër Cheikh Ibrahima Fall gi fas yéene waxtaan ak jëwriñ jëwriñ bu mag yo xamanteni ni bari na murid yo xamanteni dañuy tataani kàddoom waye soxla yi ay ndax lepp njariñ la tay fekke na lu bari fi ni nga xamanteni moy mooy Thiès muy Baye Modike Badiane mi ñu fas yéene waxtaan ak mom ci origine Thiès waye waxtaan ak mom ci li nga xamanteni nak moñ fi ñu fi ñëpp muy bisub gamu gamu bu ñëk ga gam fekke woon ak gàmmu gi ak yokk gi nga xamante ne am na ci yoon bi yooyu yëpp tey dinañ ko laaj ki nga xamante ne mooy Baye Madické Badiane Baye ñu bàyyi la nga nuróog ñi nga ñi nga nuyoog ñi nga xamante ñooy seetaan Jazboul Mouride TV euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi teet waa réew mi Jazboul Mouride TV ñëw ci pàkk bu tedd bii di pàkkub Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ci Thiès pàkk bi nga xamne ne tay fi la serigne Amdi Fall mudu mbenn nek tay di magal suba di màggal njabot gi ñepp ñew ci njabootuk Cheikh Ibra Fall njabootuk Cheikh Ibra Fall fukki buntu kër yi ak benn kenn dessu ah kiko ko won nak muy Cheikh mustapha ndax njaareem lañu daan gàmmoo waye da wax ne damay gàttandu wa saw jams motax ñu andi won gam gi fi ci ties njabot gi yep di gam si dom ju Cheikh ibrahim Fall am sa buntu keur am nga ko fi ci ties amul ko amul woon kër li dalee kër Cheikh ba bagay dem Kawsara njabootu Cheikh ibrahim Fall bi la ko sëñ Moustapha Fall mi njëkk a toog Cheikh ibrahim Fall 1930 loolu la njëkk def fekkan nak mu jabal fi jam bu tedd bu ñu wax Mame Mbaye bi fi Cheikh di ñëw lu jiir Cheikh di fi ñëw kon liggéey booba nag mooy dox ba nëgëj man nag ci lima ci fekke Serigne Abdou Sakkour mi mujj a doon xalifam doomi Cheikh Ibra ay gàmmoom bokk naa ci ñi ko saytu waaw at mooma la miire kër gii Serigne seex Fall Baye Góor ak ñëpp ak sëñ Moudou Aminta ñëpp ñëw ñu miiree kër gi muy 1981. waaw loola mooy miiraasu kër gu mag waaw yeneen bâtiment yi fi nekk yëpp it. Serigne Moudou Aminta bi mu fi nekkee moo fi defar bâtiment bële ak fii Baraagoum daan bi ak bii nga xam ni Serigne Cheikh Jëmb Fall ci lañ koy yeggalee moom itam moo fi def bi mu yore bi mu fi nekkee tey jii am Serigne Amdi Fall Moudou Mbenn moom maam Moodu Mbend ma bâtiment bu mag bii mu ne alali Cheikh Ibra bi ci jëwlin Omar Seck jiite ko moo def bâtiment bii mu dal tey te bërki démb rek la ko tàmbali ginnaaw gàmm gi la yëg ni barab ku fa nekk da nga fay yokk hmm. te sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw rawati Cheikh la tànk kanam rek la am mooy bâtiment bii nga xam ni fii la nit ñi di jànge jëwriñ Omar Seck alali Cheikh Ibra ñi nga xam ni ñoo tabax kër sëñ Cheikh jëmb ga ñoo tabax mbaar ma ci janatu ma waa ñoo jëkkan fii daawit defar kër gii sëñ am di dara muy fii sëñ si jëmb doon dal ren jii nag loola noppi ñu ne ko fa tegg daal di sosaat nag alali Cheikh Ibra Fall te alali Cheikh Ibra Fall amul jëwriñ Omar Seck daal di koy tàmbali mooy fii moo tax tey jii daaw ak ren ku dugg ci kër Cheikh Ibra Fall gii di nga xam ne Amdi Fall mu du benn dugg na fi. bëgg nañ maam ñu ci sëriñ am mm. ñu ñëw ci gàmm bu bu bi nga doon wax. Mm. jamono yi sëñ Abdou Sakkoor njëkk ci jamono yi booba miir bi néew fi woon fii yëpp ay garab la doon pénc mi dañu koo dëkkan ba mu ferees ndax maami kii ma toogal muy Cheikh Ibra Fall booba du ne kenn nangam sëñ Moustapha Fall daawul wax kenn nangam ñu dëkk pénc ba ba mu fees te titre foncé la wan ñaari kër gi titre foncé la pénc bi di titre foncé ca 81 boobee lañ ñi ah ginnaaw sëñ Abdou Sakko da nga fi gàmmu si ñëpp daan fi gàmmu si ca pénc mi amatuñu fu ñu nekk kon nañu liiñee génne bord yi daal di génne ñëpp nag mooy penc mii mbaar mi ne mooy bërëb kër gii ñu daal sa yëb sa ko daat fa jóge nag ni kon daa koy sàkket sàkketu feeñ mooy miir bii fi nekk ginnaaw sëñ Abdou Sakkoor nag yàggul ndax ñeenti at la mu Modou Aminta nag ñëw kooku nag moo ci yàgg ndax ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ni at mu ne fii lay gàmm bu ñëwee dal kër El seex wàdd Wade bu ca bu bu ñu nee suba la màggal mu daal di ñëw fii ban ni ñu ko fi defee nag néeg bii. mu dikk yëf ca tabax bu mag bee la daan dal mooy saal bu mag bi féete sawu am na saal de bee bu mag foofu lañ njëkk a defar sëñ bi ginnaaw bi rek lañ ko defaraat ak Serigne Omar Seck jëwriñu Cheikh Ibra yi nga xam mooy alali Cheikh Ibra ji sëñ Cheikh jëm moo ko yeesalaat nii daaw dagg bunt yi daaneel garab bi am na néegum ñax bu fi nekkan sëñ Ablaye Fall Ndar moo ko fi defar muy néeg bi Omar jëwriñu Omar Seck ñoom ñu ñoo ko dindi néeg boobu ñu ngi koy defaraat sax booba màggal gi nag daaw deme ni waaye nag ñëpp daa ñëw di tund Taïba waa Touba Pékou ñëpp a daan fekk si fii njaboot gi Serigne Cheikh Fall Baye góor nag daa ko defe kër Cheikh ci kër suñ Moustapha fee Serigne Cheikh roqee di màggale booba fala Serigne Cheikh Fall Baye góor daa nekk fala daan defe gàmm yi Serigne Ablaye Fall ndar ndar Fall léegi nag kon loolu mooy liggéey bi Serigne di nag bi mu ñëwee. seen nga bi mu nekk ak bâtiment bi yëpp moo ko ci defaraat nii màggal gi mel nii wax dëgg at mu ne nii rek la daan mel bala noo xam doolay màggal gi nag ñu ma ñu gàmm ba ca suba ga yiwi ko bi njabootu Cheikh Ibra Fall gépp gi ci dëkk bi fii kenn desul. maanaam yan tund lañ wax ci Thiès. waaw njabootu Cheikh Ibra Fall gaa ngi fi di màggal Thiès. waaw man yan yan barab yoo xamante ni. waaw njabootu Cheikh gi Cheikh ñeenti quartier la fi am. akub àll muy baye muy sag ba Madina Fall gii mooy këram gu mag kaw sara kër sëñ Asan kër Seex kër sëñ Moustapha Fall murit ga sëriñ Abdoulaye Yaqin moo fa nekkan foofa la daan jóge di màgg di gàmmu see fii di dellu léegi la ñuy gàmmoo foofa penc yooyu yëpp njabootu Cheikh Ibra Fall dañ fiy gàmm Ndar Fall kër sëñ Ablaye Fall Ndar penc mi pencub sëñ Ablaye sax lañu ko daan wax ba 1951 sëñ Mor Talla ñëw fi daal di laaj sëñ Fall sëñ Fall nañ ko tudde Midinatul Munawara du gent du ko fii mu ne fi Cheikh Ibra Fall nekk moo ëpp population ci Thiès bu don ci ay politiciens yi sax li tax ñu di fi uppe ni demb ba tay no ngi recevoir politiciens yi li ñi wax moy bu ñuy xëccio carte ku gañe Madina Fall ya gañe dëkk ya gañe région bi ndax mo fi ëpp population ca lolo mami soxna si mo ko fi def muy Cheikh Ibra Fall sunu sang bi ci bi nak nañ ko jaala mu yàgg bi mu ñëw waaw bi mu ñëw waaw koku mom man ma ñëw ci mom waaw Serigne Amdi Fall Moudou Mbenda Mamoudou Mbenda njabootam gépp kenn desul la dala ci sëñ Cheikh sëñ Taala fukki doomi si sëñ Mamoudou Mbend yëpp seenu njaboot gi ñu am ñëpp a ngi nii ci biir kër gi kenn desul taaw ba caat ñëpp a ngi ci ginnaawam loolu moom sunu boroom defal na ko ku Mamoudou Mbend jur nga fi sa doom jeng sa taaw ba sam caat ñëpp waaxu nañu topp ci ginnaawam mu daal ni cas nag moom itam ca ngoram nga tuutaayam ba ak jomam ja la woykat ba waxaan am jom am am lu jom daa bokkul mu daal ni li ma fekkan sama mag yi di ko def ma jële ko sëñ Cheikh jëmb du ma ci sansa dara sëñ Moudou Moustapha lañ ma tuddee daal di jël sëñ Cheikh Ndiaye mbéng ne ko yaay saa jawri mu ànd ak nag rakkam ju tedd ji di sëriñ Cheikh Ngunda mi nga xam ni baayam bu tedd ba ca baayam sëñ am di mii la ko baayam noon càpp loxo ne ko maa lay wutalub sëriñ jox ko ko bés bu na mu nettali ko waaw moom itam mu nekk ci Thiès sëriñ Mbacke Fall Moustapha nekk fi njabootuk Cheikh Ibra Fall gi boo demee Kawsara sëñ Moussa Fall yàlla na yàlla wéral ay cëram moo fa doon jëwriñ ci sëñ am di xëdi ba nag ni 1980 di sëñ Assane Nelebe ba léegi sëñ am di ne fi mooy jëwriñ ji moom sëñ Moussa jullikaay bi it baa ngi nii man ñi maa yor micro central bi jullikaay bi ëpp na ñeent fukki at saa yu ñëwee ma man mii man mii la ñuy laaj maay wax waaw c'est war may kër gii nag nii ko sëriñ bi defee xay day indi njaboot bi ñuy tudd yàlla muy fab ay tabax di fi def jël njaboot gépp ni leen ku ma yaakaar ku yaakaar Cheikh Ibra na ma fekk kees noonu la mag ñëpp daal def yokku na nag ka mm-hmm. ci ngalama moom nit ñëpp a ngi ñëw foo dem ci tund wi tey ba barki démb nootoo gu jamaa am naa fa ñetti fan foo fay cosaanam moom mii ci néegub ndey mook suñ xabbaan mbàkkeem suñ fallu dem naa fa ñetti fan def naa ko fa ñëpp a ngi ñëw Tayba noonu boo demee Jogo noonu ci lépp nag la sëñ Moustapha waxan ni nituk sawu jant tas koy gàttandu moom la sëñ bi di def kon ñu ngi leen di sant nag bu baax di ñaanal suñu jëmm ji suñu sang bi muy sëñ Amdi Fall Muudu Mbenda li mu bëgg yàlla defal ko ko te woo na ñëpp tàllal na ñëpp loxo liggéey baa ngi yokk nii kër gi mel kat ci saayir nii ñaari at yi ma ngi koy soog a mel nii tant yi fee rek lañ daan yemale waaye léegi dëkk bi ay waa waa Italie ñëw nañu yokk nañ fi liñ fi def wanag yi ñu fi def mat na sept millions wanag wee ngay séen ne sept millions mën na ko te dan daan bun daan gàmm dan daan woo ñi mang ki di defaraat wanag yi jëwriñ jee ko defaraat daaw muy wanag yi fi sëñ mu deminte defar waaye tey yokku na yokk goo xam ay wanaga ngay yoo xam ni mënu ko busel annoncé nañu ndox maag lépp 7 millions alal Cheikh Ibra Fall ji def na fi ñu ànd ko ak njabootu Cheikh gu bitim réew ñëpp ñëw ñu yokk kër gi ba léegi kër gi tubaarkala ca liggéey wi day continuer taxawagul alal Cheikh Ibra jaa ngi nii dañoo simb tabax boo xam ni fii ne bu ñu noppee ab pale lay doon boo xëy ñëpp dañ lañ ci xaj waa université yi jàng ci saal booba la ñu toog te li ñuy bari si monde ñoom ñëpp ci université fee suñu saal ba kon loolu moom lañ leen di soññee bu ñu noppee ci liggéey bi sëñ am di ne dañ ci continuer def ko liggéeyal ko Cheikh Ibra Fall teg ko ci loxol Cheikh Ibra jërëjëf bàyyi daa mel ne sëñ Ablaye mi am na si yow cër loolu waaw sëñ Ablaye mii mhm. baayam sëriñ Xalifa noo bokk lépp waaye la ma la doon wax ci moom baayam da doon kenn bokk ak sëñ am di mii ndey ak baay bàjjan dabaa ngi nii toog di rakkam di rakk si seen xalifa na way juróom wa melan nag moom la nuru yàlla da noon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamina yoon ñu ma ne ci mbindaa fan yi lu dul nga doon seen yërmande sëñ Ablaay mii nag loolu la yàlla dogal ci moom na bàyyam ba meloon ubbiku ku mu jot tey rek ñoo ngi koy doon wax moom lu wenn xeet lawbe yeeg bambara yeeg ñëpp bàyyi ma leen def ay murit waaw lawbe yeeg bambara yi ñëpp la xajoowan nii la baayam bu tedd ba daan def ci ginnaaw ak magam ju tedd ji sëñ am ji mm-hmm. soxna da ci dara loola nag taal buy fay taal bu fayul la ñu fal dekkal mooy mooy bindam bi bu ñëwee day beru togg ak berne nit ñi fekk si ko moo fi dàqut dal xam nañ si moo fi dàqut dal ku mar man mi suma maree doomi baayam yi ku mar da nga naa demal fee te baayam daa tënkoon ci ak taalibe daawul ni waaw nii mu silwisee sax moom nii bàyyi ma bàyyi ma benn xaftaan lay soo rek di lijjanti nit ñi di dugal lu ma am joxe bàyyiwul kenn ubbi xolam ba yaatal ñëpp moom nag loolu la don motax nak nit ñi ko téran képp ko xamné ne da nga di wo ak lem bo taxawé bo taxawul ci naaj ay wéñ délé la jël tubaarkale yalla yalla guddal sax fa waaw xitmatu batul muraqib alal cheikh ibra nok lay nuyu bàjjen ñi ngi lay ñaanal yalla ne yalla guddal saw fan ndax nu itam waaw batul muraqib waaw waaw jëf yéen itam nii ngeen ni def tubaarkàlla liggéeyub cheikh Ibra Faal rek leen ñor seen jambar ji sëriñ Fallu Faal jëwriñ sëñ Mudaminta sëñ Moustapha rakkam ja liggéey bu ne nangu naa ko fii ci sëñ Mudu Amin te liggéey bu ne nangu naa ko fii teewe naa ko waaw ci Seex Mudu Fallu Fall mu tedd fa mu doon sama lépp xëy lu da mostaa jóge fii ci sëñ naa ci ñaar fukki at ak ñaar yi man mi maa ko man la daan def àggan naa ci fukke at yu mujj yi sëñ naa leetaru sëñ naa man la ko sëñ Mudu Amin tey jox bu ko bindee kër bay Sëriñ Jooy Pikine mbaa mu bindee ko Faas bu ma nekkee naka ndax booba man booba man maa ngi ndakaaru aéroport laa nekk mën naa saa bopp su ma joxee leetar bi sëñ Cheikhouna Burkina la daan tam xarité mbaa mu dem Côte waar ba màggal lay ñibbisi buñ ma joxee leetar bi booba mën na maa lijjanti wuute naag léegi ma daal de fab sëñ ba jox sëñ ba foofa nag kër Baye Serigne Ndioy laa koy fekk mbaa ma fekk ko Fass jokk ko ni ko lëggee sëñ Cheikhouna gi nii loolaa taxan sëriñ bi jàmbaar ju baax jooju sëriñ Modou Fallou yàlla nañ ko yàlla fayal waaw moom yàlla nañ ko yàlla fayal moom la doomam yi topp wëlbati ko tënku ci ndigal ndigal ko ci tënku nii sëriñ Hamdi Fall Modou benn def ba yàlla jox ko cër bi ndigal rek ko dem mu dem ko demul mu dem ndax ndigal rek la dan mustab magam yi mu im bokal ak ñepp la ko yamale fu fa dem day seug luñ ko sant mu def ko ba yalla fop ciir ba ne tegg ci ay loxoom waye ñepp ko ko nangulit nak waaw ku yakkar Cheikh nang ko yalla nak fi yalla yagal na ngeen ñaanal ci taraje Cheikh Rafal ah, sama sang bi nak ki na moom lini ko bëggal sa boobu li ni bokk bok man sa xol lu mom day sama xarit yalla na la yalla yagal gis naa ni ngay liggéey fii ñu ne fii fekk ñépp ñu ci bari duñu ay Baay Faal te yaa leen tax ñu dugg ci kër gi daaw ak ren xam naa ci lu bari fii ñeen fukki at juróom def naa ko fi xam naa li fi xew te gis naa ñu fi dugg ñoo du ñu ay Baay Faal sa jëmm ji leen fendi ci bu ñu ñëwee teraanga la àndal di ko teg say loxo yal na yàlla guddal saw fan ak li ngay liggéey ci bitim réew bitim réew tubaab yaak ñëpp na sa baay ba daan def di di bambara yeeg tubaab yeeg lawbe yi ñëpp mu dugal ci Cheikh Ibra de yow tam loola doon nga ko yal na yàlla mbuur boo ko fa fekkee di nga ko naw tefas gaa tubaab bi ñëpp ci seen biir la xam nga nit Cheikh Ibra sëñ tubaab dani tër bi jonjoo bi sëñ Tuubaa demee ba mënatu la jonjoog nit ku ñëw daal naa demal ci Ibra Fall mbaa demal ci Mandumbe mbaa demal ci Cheikh Anta ndax tërbiya jonjo moom nag jonjoo gi muy jonjoog ci la leen di suppi yàlla na yàlla guddal saw fan malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko